toog nag fii moo tax mais Youssou Ndour daf ma defal loo xam ne euh, dama koy sant mësoon naa ko gërëm ci émission Pape ngañ mais booba Pape Ngagne yàkkamti naa xuloog waaye yeewu ba naan ma loolu de yaa koy wax waaye ñi nga àndal duñ ko wax nangu maa déglu sax ndax boobu li ko waraloon moo di awma complex su wax ni naata mi yaayam sama genn wàll la Youssou Ndour keroog bi Jeanne nelawee euh, ñun ñëpp ñu nekk ci naqar kenn ci kenn ci GFM waxuma TFM de waxuma RFM mais kenn ci GFM desul ku ñëwul principal ñëw nga mbuur ku ñëwul mbuur dem nga kër naata magam yii ku ci nekk lëngu ko ñoom bu ba nekk fa donc waroon na mën a bañ a ñëw mu ñëw ba mu ñëwee keroog fa la doge muy premier jour koor gi. noonu la mel ak ñëpp. boobu mu doxal ci personnel am. dama ko ci naw parce que nit doo ko gërëm ci kaw daf la defal. dama ko ci gërëm donc loolu moo tax may jëkke gërëm loolu. avant may ñëw ci gërëm li ma ko gërëm keroog bii nga xam ñu ngi def super lingeer loolu gërëm naa ko ci mais bëgg-bëggam la def c'est-à-dire Youssou dafay def li may wax man.

Qatar ne bu doon sago Sénégal moy invité d'honneur mais bu doon qui ki yoré culture au niveau de l'Assemblée moy ñëw ak ki yoré culture au niveau du gouvernement ma suis ak ministre ba man en tant que président de la commission culture ma and ak ministre bi au nom de l'Assemblée dem suis démé ñu and ak benen artiste ñu chef fa l'Assemblée Cheikh Tidiane Sy mu dabaax malik bobu moy ambassadeur bi mm-hmm. ni ma madame man ne ko waaw mu ne ma ñun suñu meilleur ministre de la culture mooy Youssou Ndour parce que man acteur culturel laa ma ne ko ah bon mu ne ma waaw mu ne ma dara da koy jox ki ko ki ko mën mhm. bul ko jox sa xarit da koy jox xaritam mun ma te Youssou Ndour moo xam culture ba mën a jox culture ak xam xam nga pap kañ laa ko xam affaire u bi gis nga bi ma ko yónnee message mu xam concept bi buuba nduur la yebal mhm. yaay buuba lay wax daal ni ko sa yaay lu mu soxla demal mu def ko gis nga spot yi nga doon dégg muy jaar fii ak lu ko xam spotu TFM mhm. parce que nag c'est normal seen audience sa toll noonu. waaw oui dafa cher fayu ma dara. ah dara laa fayu. macha allah. gis nga xam na ne Bambey équipe ba nga fa. Mhm. bu dëkk a biir Bambey teewul dafa yabar Modou Fall caméraman ak monteur jël auto jox ak carburant bi prise en charge sa daf couvrir événement bi commencé sama kër ñu ba ci stade ko de couvrir ko ñu paré mu ñëw ñu ko journal ce doyatul mu spécial def 15 minutes 15 minutes nga xamné aspect yépp génné nañ ko ak li bour yi wax ak li bour yi def ak ñoom paala mbeng ñoo ñëwoon ci yëf ya bour salum bour bour bour joñi bour ganjay ak ñom bour sin lañu def yépp mu génné ko moko def ñu tek ñu tek 15 minutes yooyu jouru kaso rajo mm-hmm. mu ni nit ñi tallu ñuko won nañ ko tegaat le lendemain wallahi moko def lolu su ko won Macky Sall maa ni ko day faral Macky Sall mm-hmm mais man mi ci opposition bala ko defa mhm. te lolou mënuma koo fay aw awma won sax xaalis buma fay fay wallahi kon buma ma tok fi. Mhm. dana ko gërëm sant ko ñaanal ko yalla gërëm leen aussi nak mhm. gërëm leen parce que man wax dëgg yalla sama càmmee la ci tanday soxna daaw xam nga ni bima ma tanday soxna daf la né dang koy jël ci téléphone bi wallahi defal ko kenn nak wallahi defal ko kenn nga jël ko mu wax sama ak mom wallahi ca ndey astu aaj ba léegi mhm. donc vraiment parce que ndey astu aaj ku nekk xam na ni jigéenu yusu la mhm. euh, dafa am benn bis Ablaye Wade di ñëw ni ma ndey astu dafa ma jox xaalis